ku nekk ni nga séq ak man rek laay wax Metsu c'est un meneur d'homme effectivement te daf ma wax lu bëri équipe nationale Metsu bi ñu toogee il m'a expliqué beaucoup de choses mais nag football dafa di loo xam ne lu bëri bu amee rek na am seen biir quoi waaw euh, bi ñu ñëwee bi ñuy waaj 2002 Coupe d'Afrique 2002 Mali bi man ci présélection bi laa bokkoon Metsu bi ñu ñëwee mu ne ma man ce que je veux faire c'est yow El Hadj Henry laa bëgg a teg ci kaw damay teg Henry à gauche El Hadj à droite yow nga samp fa di nga nekk seen ginnaaw moom c'était ça son souhait moo doon plan moo doon plan loolu la ma wax te loolu la bëggoon wax na ma ko fii bi ma ñëwee équipe nationale sélection loolu la bëggoon bi may ñëw équipe nationale am le fameux match contre le Burkina bi ma yëgul woon sama papa bi ma ñëwee kër ga mu ne ma non doo toog ne ko papa man ma convaincre contre Algérie mais moom mi ngi bëggoon loolu contre Algérie waaw faf nag sama papa ne ma demal dugub bi ma contre Burkina bi la ñu mu doon match bu xaw a doy waar. waaw mooy bi ñuy dem CAN. coupe du monde te Burkina gagné ñu 4 match boobu man malheureusement mu duggoon ci te bon ñooñu xaw ma leen bon. ak Mon ak Monet. effectivement voilà c'était le gardien. est-ce que xam nga Monet. Mhm. moog José Touré ñoo bokk baay. ah bon ah ça je ne savais pas. Monet ak José Touré Bakaro Ba Touré mooy seen papa international malien. Mhm. Monet yaayam a ko jox santam. ndeysaan moog José Touré bokk baay. mais mu doon marché bu dooy waar nag match boobu après bi ñu paree ba bi euh, euh, euh, Metsu def présélection bi ñu dem Mali. maa ngi ci woon maa ngi ci woon ci biir mais après expliquer ma yoo xam ne wax dëgg yàlla bëgguma ko wax. Euh, mm-hmm. euh, télé. Mm-hmm. moom il m'a expliqué beaucoup de choses. et il a la franchise. effectivement il paraît qu'il a eu la franchise de te dire Fary. effectivement du ma la sélectionné 2000. effectivement bi ma toogee mu ne du la yóbbu ndax lii ak lii ak lii moo tax. mais moom mu ne ma je te man sama souhait moo doon ma yóbbu la yow ci kaw. Mm-hmm. Henri El Fadiga seen ginnaaw seen ginnaaw loolu moom moo doon suweem mais nag après y' a d' autres forces yu pousse merci ba yóbbuwuma mu yóbbu ñeneen loolu moom moom moom ci boppam moo ma ko wax waaw sélectionneur effectivement yàgg na subir loolu il a été man teguma ko fenn dama ko teg rek yàlla moo tuddul woon ma bokk wax nga dëgg kon kànnu Fary Faye bi moo nekk nii ici c' est au départ au palais de la République Abdou Diouf au milieu groupe baa ngi nii Oumar Diallo Daouda Ly Ousseynou Ndiour les gardiens de but Malick Diop Ousmane Assane Ndiaye génn na àddina Pape Sarr Henri Camara Oumar Traoré Khalilou Fadiga Fari fay Fari fay mi ngi noonu euh, bopp bi moo tegu ci euh, mbaggu Abdou Diouf mbaggu droite bi Abdou Diouf Moussa Ndiaye Pape Ñoxor Fall Mbaye Badji mi nga xam ne tey mooy entraîneur yëgo wax na leen ka Ablaye Mbaye Papa Amadou Ndiaye Daouda seen Salif kayta ak Pape Sidiba may rappelé ni Peter ak Ablaye Sarr ñu doon entraîneur Iba Gueye ministre des sports mi ngi nii ci photo bi euh, sur la gauche de Abdou Diouf ici à maillot vert de suñu match contre Égypte yéen a ngi fàttaliku 1-0 bi ñu Égypte gagné au Nigéria Kano euh, ñaari bal yi nekk ci terrain ba ramasseur bi benn bi dafa nekk ci biir mu jël beneen bi sànni ko ci biir ñu taxaw di nekk benn ballon bi génn égyptiens yi euh, continuer sur la même action marqué 1-0 boobu ñu perdre Fari moo jonkan ni sur votre gauche euh, Pape Ñoxor Fall teg ko loxo Malick Diop di capitaine. Ici, il est avec les Fadiga, il est avec les Assane Ndiaye mi génn àddina euh, Henri Camara gis ngeen euh, Oumar Daf booba temps dafay dafay rasta ah ici c'était contre l'Égypte on perd 1 à 0 et là contre le Burkina Faso victoire du Sénégal euh, buts à 1 le groupe est le même Fari numéro 20 moo taxaw na le ci seen euh, gauche ci wetu Assane Ndiaye numéro 9 Pape Sidi bala moo nekk nii kii di Ousmane Diop lu Fadiga numéro 10 Oumar Diallo moo nekk nii gardien de but euh, fële ñi jonkan Pape Sarr numéro 17 Henri Camara moo nekk nii 7 Oumar Daf 2 gis ngeen Oumar booba temps euh, jeune homme la dafay dafay mbay Mbaye Badji moo nekk nii numéro 8 et à gauche euh, ci faño bi Pape Malick Diop capitaine numéro 4 fari fay 20 ñu koy ganal tey ji ci ñëwoon démb tey ji mook Henri Camara ñoo nekk les footballeurs sénégalais yi gën a yàgg ci terrain euh, Dewan lay dugg 40 ans Souleymane Sané avait été capitaine à 36 ans mais lui est encore professionnel à l'âge de 39 ans. Mhm. Fary mbaa yaa ngi pare diplôme mu reconversion yi parce que regarde Aliou Cissé. Mhm. tey jii il a l'équipe olympique. Mhm. Euh, mën nga ko fekk en équipe nationale mbaa yaa pare reconversion. et puis loolu ça fait beaucoup plaisir parce que comme je le dis euh, père naa anciens internationaux dañu war a fexe. dugg mais nag ñun ñëpp mënuñu nekk entraîneur man c'est ce que je pense. ñii dañu war a nekk entraîneur ñi nekk dirigeant ñi nekk la ñi ci mën a xëy na jàngiwaat tuuti dem jàngiwaat. tuuti pour mën a jàppale suñu réew. ñun ñëpp quoi mais bon man man fi ma nekk agum bon man maa ngi sant yàlla fi ma ne. yàlla lu ma def ëllëg nag rek ma ma xam ne. yàlla loolu la uh-huh. Fary xam nga fu ñuy jeexale uh-huh. Portugal nga defee sa renommée ah nekk fa euh, comme on dit international au Portugal. nekk fa international def fa li nga fa def. Mhm. Euh, mais bi ngay dem Portugal foo jaar foo jóge au Sénégal nga jógee ba fan yéen club nga def au Sénégal. waaw man euh, man maa ngi woon Casa Sport ndeysaan Casamance parce que fa. def nga Casa Sport effectivement. Casa Sport bi ma fa nekkee man suñu génération maa ci gënoon nekk xale. maa nekkoon dama doon fóol senior yi nekk en même temps ci junior yi. waaw Casamance yi bëgg ma def ma ni seen doom. Casamance yi pour ñoom man seen doom laa. ndeysaan te man séeréer laa. man je suis né à Doudam. seen waaw mais dañ ma bëggoon. ñu nag ñoom Atanas. ñoom euh, Atanas Seni Diatta ñoom Zakaria Mendy maa ngi mhm. grand bu baax aussi bu ma jàppale lu bëri. Mhm. ñoom Abdoulaye Dari ñoom Simon Kabou. tu as commencé au Casa Sport. au Casa ma jógee Casa Sport ñëw Jeanne parce que bëggatuma woon toog ci kër gi. Mhm. man sama papa dama bëggoon reyante ji. tombé sama yaay nekk euh, Dakar sama yaay aussi jàppale ma ci loolu. sama papa aussi ndeysaan. Casa Sport Jeanne d'Arc effectivement Casa Sport ma ñëw Jeanne d'Arc bi ma ñëwee Jeanne d'Arc def fa deux ans fekk fa ñoom Pape Diouf ñoom Akel Lamine Boub euh, ak Tony Silva. Tony d' ailleurs ñoom ñoom ñoom ñoom Moussa Ndiaye ñu nekkoon ci centre formation bi. Aldo Gentina Aldo Gentina ñoom euh, ñoom Diawo. ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu effectivement ñoom am di fay. mais ñoom yàlla def ñoom ñëpp ak bi gars yi dem Monaco yëpp boobu maa ngi GIA. yow kon GIA nga jógee dem Portugal. non GIA laa jógee dem ETICS. ETICS ma ñëw ETICS aussi yàlla defal ma fa jàmm ak sutura ma fekk fa nit ñu baax ndeysaan ma jógee éthique nag ma fa defee 6 mois si la yàlla def fekk man sama yaay daan na ma wax yow xëy na équipe du la yóbbu nit lay gis yóbbu la et ni ko sama yaay waxee noonu la mhm. amee ñoxor Gueye li ma la wax jagu seen boole maak ñoxor Gueye ñoxor Gueye jël ma boole ak tubaab bi tubaab bi ne ma naa ko yóbbu mu def ay test tubaab bi aussi bi ma yóbbu test dafa ne damay koy dem seeti bu ma ko fekkee entraînement yóbbu ko mu fekk ma entraînement Euh, man kese may entraîné mu jël ma yóbbu ma def test test six kon bi ngay génn éthique bi ngay génn Sénégal yaa ngi éthique. éthique laa jógee. ah très bien six mois rek laa def éthique nag quoi. très bien mhm. kon bokk euh, Sénégal Casa Sport Jeanne d'Arc éthique. effectivement euh, puis le Portugal. Mhm. nga dem Portugal ban année. 96. 96 96. Fary looy tàggoo. waaw may man damay sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ginnaaw yàlla lépp lu ma am rek maa ngi koy sante yàlla ak yónnante beeg sëñ Touba di sant sama sëriñ bu baax jaamu sëriñ Touba. ki nga xam ne fi mu nekk vraiment yal na yàlla yokk leeram. amiin amiin amiin fay parce que euh, daf ma jàppale côté bu wàll wu ne. est sama yaay. ak sama papa père parce que man euh, santuma nii rek parce que comme ni ñu koy defee. Mhm. ñooñu dañ ma jàppale. Mhm. sama papa daf ma jàppale. Mhm. sama yaay moom lu nit di def ci doom rek moom def na ko ci man. man c'est ce que je dis lu ma doon moo ma moo ma yar. lu ma xam lu ma def sama yaay bi ma tudd sànq. muy koo xam ne il exceptionnel pour man. di sant sama njaboot yëpp sama sœurs yi sama cousin cousine parce que man yàlla dafa def ma ma ñu yor famille bu mag quoi. Mm-hmm. Euh, li ma ci mën ci lu baax maa ngi ko ciy def te yàlla ma yàlla yokk ba lépp li ma leen bëgg a defal ma defal leen ko. di remercier aussi tout le monde. jërëjëf Faye surtout à vous je vous remercie beaucoup. parce que père amoo morom te yaa ngi topp sama carrière. ñaan yàlla yàlla na yàlla xeb dool defal ma jàmm defal ko sama morom yëpp yàgg ñu fi nekk. jërëjëf mi ngi nii maye bi c'était il y a dix ans ba ma ko joxee léegi nek meilleur buteur moom ngeen yanool nii Fary Faye meilleur buteur championnat Portugal yenu ko indil ma ma denc ko dina bisam tey moo doon bisam bi ma koy ganale ma génne ko sol ma yow ma man de xam naa ne journaliste yi bootul dinaa mos nekk seen meilleur buteur <laughs> mais bootul dinaa mos parce que ku sol maillot meilleur buteur moom foo jaar war ma ngi nii de te nag mënoon naa taal de xanaa kay dafa voilà maillot laa sol nii euh, am ci trop mbégte euh, looy wax équipe nationale. ñu ngi di ci yoonu qualification coupe du monde bi loo leen di wax. solidarité solidarité mën na yóbbu nit fu ne. moom la El Hadj Diouf ku nekk sa morom gënal la sa bopp. moom la El Hadj ak Henri Camara wax. effectivement solidarité na leen seen morom gënal parce que 2000 2002 li ñëwoon yëpp.

que qui sont à l'intérieur. mais on ne peut jouer à douze. Mmh, mmh, mmh. Fari Faye jërëjëf. Fari Faye jërëjëf euh, yaa ngi ci établir yaa ngi établir performance bi dugg ci euh, analu footballu Sénégal. le professionnel le plus âgé aujourd'hui 39 ans au plus haut niveau Portugal deuxième division trois fois meilleur buteur du Portugal une première fois 93 une dernière fois une première fois 98 mais en première division 93 10 ans après mu nekkaat que hygiène de vie Fary merci d'être venu ci mbégte bi te nag euh, comme ñu ngi woon ci démb léegi tey nañ dawal ba ca kanam <laughs> nañ dawal ba ca kanam qui sait qui sait pourquoi pas la coupe du monde <laughs> encore avec Fary Faye pourquoi pas. <laughs> kon boog yi ñëwoon démb tey ma indi leen koo xam ne dafa nekkoon dans votre deux. xam nga su ma leen ni woon Sénégal yi il sont trois à être meilleurs buteurs de championnat européen. Mm-hmm. daa ngi ne ma ni oui Bokandé oui ma Niang mais troisième bi du gaaw ñëw. Mm-hmm. parce que tous les jours on écoute la radio en France. on regarde la télévision, il parle français. Mais on n'écoute pas la télévision portugaise. Mhm. On ne lit pas portugais. Et lui, ce qu'il a fait, il l'a fait chez les Portugais. Mhm. Meilleur buteur du championnat du Portugal, le championnat du Portugal étant plus relevé que celui-là français. Mhm. Mais c'est vrai, une grosse performance. Surtout que lui, door penalty. 21 sans penalty. Mom la Fari Faydef. Retenez son nom, diguen ko soxlawaat. foo dëkk ci Dakar Mbao maa ngi Sicap Mbao Sicap Mbao di sant waa Sicap Mbao yëpp aussi waa Sicap Mbao waa Sicap waa waa Fora di leen sant ak waa ñaari tali parce que man ñaari tali laa juddoo mais Sicap Mbao laa nekk sama mos ngeen am journaliste bu joué à Mbao Mamadou Kassé bu Soleil joué na Mbao mais kii euh, du ñàkk li mu dese bu ñibbisee mu yéege mbaaw première division. amiin far yaay ne yaay yéege mbaaw ah ci li ci des. parce que xam nga El Hadj Diouf na <laughs> dana ñibbisi. Uh-huh. te bu ñibbisee mën na joué waat. Henri mm-hmm. Camara nee na dafa bëgg jeexal jaraaf. Mm-hmm. mais yow boo ñibbisee. Mm-hmm. li nga dese. Uh-huh. jox ko waa mbaaw <laughs> nga delloo si leen première. wala Fatick waa mbaaw wala Fatick. wala Fatick wala Fatick. dana neex Mamadou Kassé. <laughs> journaliste qui a joué à mbaaw. Uh-huh. kon ba gars yi ñëwoon démb fari fay laa leen indil tey mu dugg dans l'histoire du football. parce que performances sportives te jeexagul xëy na danaa def ak moom beneen ñëwoon démb bu carrière bi jeexee yal nañ ci yàlla yóbbu fari fay jërëjëf mbokki ñëwoon démb jërëjëf rediffusion bi a ma koy laaj c'est le mardi à partir de 13h léeg ñu ko ci coupure courant yi léeg-léeg ma rediffusion bi kañ la mardi 13h fari fay ñëwoon démb ak tey ci émission tey bi ci jataay bi jërë ngeen jëf ba beneen te fàttali mooy maam dafa sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaata duma ti fàttali ko waaw oui en kon segam ne na la